waaw waaw bës ma puus ma puus ma. jërë ngeen jëf. doore yéen kaay ñu xëyandool ak Abdoulaye wadd mi demoon naka démb ca diwaanu Tiwaawoon observateur xëy ci dellusiwaat ci xëtamu njëkk. moom Abdoulaye Wade ba mu demee ci Tivaouane journal bi nañu bi ñu julli timis ca la wàcc ca dëkk ba ak ñi mu àndal ki nga xam ne moo di Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine moo ko teeru Abdoulaye Wade demam nga ca Tivaouane waxtaan wi nga xam ne séq na ko ak ki amee njaba euh, kaddu njabootu Tidiane lépp observateur euh, xëy na ci dem ba jeex lu ci li nga xamante ne ji moo di waxtaan woowee ba tey observateur nañu euh, li mu ko xamal moom Abdoulaye Wade moo di Sénégal jiite naa ko fukket ak ñaar képp koo xamante ne ji yaa ngi Sénégal war ngaa xam ndax liggéey naa am liggéeyu ma sénégalais yi lay bàyyi ñu jugé Serigne Abdoul Aziz mu ngi ni ci xët mu njëkk journal bi moo di silmaxey sax xam nañu ne bari na loo liggéey fi nga xamante ne ji moo di Sénégal ba tey ci biir kaay bi maa ngi cey dem moom Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine di ko wax ne ko nitu jàmm nga ñi mës a jiite Sénégal yëpp gis naa ne kenn ëpp la jàmm jàmm jooje dama lay ñaan nga di ci dox bul dox mukk ci lu yëkkati fitna yéenekaay bi na ñu it ci waxtaan woowee nga xamante ne ji doxoon na ci diggante Abdoulaye Wade ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine nee na ko euh, dem naa ci Macky Sall sàkku naa ay yoon yoon mu bàyyi Karim Wade waaye Macky Sall moom moo ma mayul kon li ma ko doon ñaan Al amin moom moo xam le loolee wal fajri moom it daaj ci dellu si waat ci moom li mbir ak kàddu yi nga xamante ne ji Serigne Abdoul Aziz Al dénk na ko Abdoulaye Wade moo di lan euh, ñetti yoon dem naa ca Macky Sall ne pour mu bàyyi Karim Wade Macky moom moo ko jëfewul journal bi tuddee ko ay confidence yoo xam ne Al Amin moo ko def ki nga xamante ne ji moom moo di Abdoulaye Wade Le Soleil moom it euh, desu ca gannaaw ci dem ak Abdoulaye Wade ga foofu yéen bi xëy xamal ne njiitu euh, la ko sant mu di lan na góorgóorlu dox loo xamante ne ji dafay saxal jàmm ci réew bu ko waxee beneen journal bu ci demaat moo di enquête dina kaay moom la mu jàpp mooy al amin dafa xutba Abdoulaye wadd al amin dafa waar ki nga xamante ne ji moom mooy Abdoulaye wadd lan la ko wax mooy benn mooy mag nga ñaareel ba ca topp mooy danga am njaboot fii kon deel dox ci loo xamante ne dafay indi jàmm ci réew bu Sénégal al amin nag li mu wax Abdoulaye wadd réew mi ko quotidien moom ñi la ñu ko dikkee moo di lan góorgóorlul ba lii di safara bi bu ko gën a xam bul gën a yokku taal bi ci gàtt lam ko bëgg a xamal foofee moo di daal na taxawu lu indi jàmm ci Sénégal bu mu fi indi benn yoon fitna populaire moom it dellu siwaat ci wooyu lewaal ak kaddu yi nga xam ne bi yoon Abdoulaye Wade yëkkati na ko eh, ci kanamu eh, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine démb ca Tiwaawoon yéen a bi dañu Abdoulaye Wade ragal na doom ju góor ji ab daram ba noppi nag fàtte doom ju jigéen ja Abdoulaye Wade mi ngi xamal Serigne Abdoul Aziz Sy ko muy man eh, di Karim Wade di ndayam Viviane Wade amu ci kenn koo xamante ne ji mën nañ laa toppee teranga ju lewul ci réew bu Sénégal quotidien nañu Abdoulaye Wade mi ngi wër këri diine yi ci réew mi ngir kon euh, faxas ay bàkkaaram noonu la ko journal bi bindee al moo di doomu sénégalais nga ci réew mi nga bokk kenn mënu la féetee ñëw waaye nag li nga war a def moo di góorgóorlu ba li nga xamante ne ji moo di jàmm nga daal di koy saxal jàmm jeex na ci biir APR yéenekaay yu bëri dellu si ci bokk na ci direct info xamante ne dafa dikk loo xam ne gisal na ko waa parti bi nga xamante ne ji moom moo di APR di parti njiitu réew mi journal bi boole ko photo boo xamante ne ji Macky Sall borom parti ngi ci mel ne ku nekk ci fitna ñàkkatooy xepp bay fomp bu yéenekaay bi nañu APR googee daanaka bari nay diwaan yoo xamante ne ji parti ba doxu fa bokk na ci mbuur bokk na ci Kaolack bokk na ci Sédhiou bokk na ca Thiès ci gàttal daal bu ñu moytu la leen di yoot moo di élection locale yi ñu am ci mbetteel moo xamante ne ji ñoom waa APR duñ ko nettali mukk beneen journal bu ko feelu mu di observateur waaye waxul ci APR waaye APR ak fa ñu bokk mu di euh, li nga xamante ne ji moom mooy euh, coalition benno euh, mooy coalition benno bi nga xamante ne ji APR ca la bokk yéenekaay bi nañu tas na Benno Bokk Yaakaar tas na ndax it eh, ci yenn diwaan yi ci Sénégal APR dañuy demal seen bopp ñoom ànd bi jëfe wuñu ko am na it opposition boo xamante ne ji ñoo ngi gën di defaru di waajal élection locale yi li ñu doon wax naan alliance contre nature bëgguñu ko ci réew mi observateur nañu loolee am na ci réew bu Sénégal te it bu ñu moytul danañu ci am mbetteel Sénégal ak entreprise yi nga xam ne ñoo ngi fi te duñu jug ci ay jafe-jafe le soleil nañu nguur gi mi ngi seet plan bu ko suqaliwaat ci entreprise ko wax bokk na ci yi nga xamante ne ji moom moo di eh, société bokk na ci industrie chimique du Sénégal bokk na ci Sénégal Airlines bokk na ci Dakar Dem Dikk ak it King Fahd Palace Hotel ak Société Nationale Chemin d'Affaires yéen kaay bi nañu ay euh, bërëbu liggéeykaay yoo xamante ne ji li ñuy jël ci milliards kenn xamul nu mu toll te mënuñoo fexe ba suqaliku euh, ci li nga xamante ne ji moom la ñuy xaar ci ñoom ñu dem feneen mu di wàllu lamb ak it euh, lu aju ci rakki Balla Gaye 2 mu di Sa Thiès gannaaw ba mu daanee kii di Jordan xëy na dénk ko observateur ay kaddu kaddu yi lan la moom Sa Thiès la wax ci xët bi cour des grands gi ñu ko bëgg a yóbbu yegg go fa dafay xaar ba ci kanam ñu fekkaat ko ci beneen yéenekaay mu di journal bi nga xam ne moom moo di Walfadjri Sa Thiès li la fa dénk ne ay kàddu eh, na diggam ak eh, kii ne moom Sa Thiès combat booy waru ko ñàkk mun woon a def erreur eh, ci quotidien ci enquête ci populaire moom Sa genn kaddu gi la fa wax mu di lan moom Sa dafa soxla ki nga xamante ne ji moom moo di Eumeu seen ndax daf ko bëgg a daan ba noppi fayul magam moom Eumeu di euh, tay si nga sunu ci la xëy nekk yéen bi nañu mbir mi ngi bëgg a doy waar ndax bu ñu sukkandikoon ñaari at ci ginnaaw tay si nga écurie Eumeu Sène bi moom moo ëppoon doole moo fi tegoon tànk léegi nag mooy écurie bi gën a bon ndax ki nga xamante ne ji moo di Eumeu Sène gis ngeen ko ni bi mooy bi ko Modou Lo daanee ba tegal ko chaise euh, avant loolu it gis nañ fi jël boo xamante ne ji euh, Coenche moom moo ko daan Xaadim Ngom looleet li ko jiitu mooy ki nga xam ne moo di Sa Thiès fi bërëgeewoon Jordan yéenekaay bi nañu en tout cas li leer ba leer daal moo di écurie Tay Shinga ñoo ngi ci ay jafe-jafe lu ko waral Mamadou Jean mi nga xam ne mooy coach principal bu Tay Shinga am na lu mu ci waa sunu làmb wax ji la nee na seen mi jiitu ci écurie bi moo njëkk a bàyyeeku gone yi topp ci lii moo daaneel Tay Shinga ba suba ak jàmm. Mohamed. oui jërëjëf. jërëjëf je supporte pas le a beaucoup de soleil. et moi je viens de la France donc je supporte pas le soleil. waaw Pape lii lan la. mais <laughs> merci. lii lan la. c'est des guilets je porte des guilets. <laughs> Mohamed jaajëf ñu ngi lay bëggee bu baax ah. et et euh, lunette c'est mm-hmm. dafa tendance trop actuellement. ay ça te protège. mooy truc truc truc et astuce ma bi tey man maa ko def porter des lunettes parce que baax na. <laughs>